wala ni nga mënee taxaw wax ay euh, qualité ci sa candidat noonu la ñu mënee taxaw ñoom itamit wax ni seen candidat bu bëree jotee bu dara jotul lu dul sëgg bëre ñoom am nañu yaakaar ci moom mais damay dellu si waat toujours ci euh, li nga xamante ne ni moo di diggante coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba euh, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar Euh, nous l'avons tous connu très serein euh, d'où euh, c'est-à-dire bëriwul sax lo xamantene mhm. ni daf ci réagir gis nañu li nga xamantene ni moo fi xew yépp accusation yi nga xam ne na ci mu des faits de corruption yo xamantene ni jiiñ nañ ko ko ni dafa corrompre ay membres yu bokku ci conseil constitutionnel mais réagirul ñu gis ses camarades de parti ci biir parti bi ay nit yo xamantene ni dañu nekk ci biir coalition bi ba paré diko ko ak ay pic réagir réagirul mais euh, fan yi ñu génn dañu gis ni dafa commencé répliquer. depuis la sortie de Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu defee seen conférence de presse boobu wax ko lañ koy wax moom itamit génn na. sànni leen ay ay ay ay ay baat moom itam euh, lan lan moo xew lan lan exactement sax dañuy ñuy wax d'abord moo tax Amadou Ba nekk ci mutisme boobu waxul waxul waxul ba moment bi mu doogay génn wax. waaw xam nga nag euh, may Kampf Hitler bu mu koy bind le mensonge la manipulation. Le peuple croit au mensonge. Et plus qu'on laisse le mensonge grandir, plus que le peuple y croit. Et ils finiront de s'adapter et le prendre comme une réalité. Le, la meilleure façon de déconstruire ce chapelet de mensonges qui est en train d'être encore euh, réalisé, c'est quoi C'est de faire des répliques spontanées et à la hauteur de l'accusateur loolu moo nekk yow tey waa jooju lu mu wax ça sonne mal à l'oreille sénégalais ça war ko mën a gëm parce que yow nekkoo chef de bureau ñun ci administration lañ nekk yow nekkoo chef de bureau nekkoo chef de poste nekkoo chef de brigade dafa nekkoo chef de secteur nekkoo dara ci biir administration nga nekk impôt inspecteur des impôts de même simple nga ne kooku su su bëggee sax nga ne ko téyel tegal loolu ay waxi dara amu ci c'est de la pure manipulation et de la diffamation mais na xam nga rek diffamation ak ak kooku mom dafa yag sen diggante dafa neex comme lalo loolu dañ ko ci comprendre jappé ko c'est sénégalais ils ils l'ont compris ainsi Amadou Ba nag amul temps nek fi di daggasante ak tontanté mom il est dans du factuel

ça c'est de la manipulation loolu wa du la. d'accord mais monsieur. waxi la tax euh, sénégalais man je me suis dit que sax waron nañ la a mhm. pour que sénégalais découvre leur véritable visage parce que ils sont dans des bourdes, dans des déboires et dans des contre-vérités est-ce que ah, c'est teel bëggoon naa ci bëggoon naa ci leen arrangé parce que depuis mu génn ba léegi daa mel ne euh, amatu leen jàmm de <laughs> ndax campagne bi taxaw au lieu de lancer seen programme li muy focus mooy tontu Ousmane Sonko wala tontu Bassirou mm. Diomaye Faye non moom Amadou Ba wax dëgg neex yàlla mm-hmm. même bu dul Amadou sax ñenn ñu bokk ci non xam nga xam nga man xam nga ça dépend des débats que nous tenons avec les journalistes mm-hmm. c'est le journaliste qui oriente son débat Absolument. si le journaliste oriente son débat sur des questions thématiques des débats économiques mm-hmm. scientifiques bien structuré, on répond avec les arguments qu'il nous faut, avec des chiffres. Maintenant, si c'est des débats politiques, nous répondons aussi à des questions politiques d'une manière politique. Lolo, mon finek. Le reste, nak, Sénégalais, ñoo koy parce que gis ngeen xale TikTok nuñ koy nu ñuy gars yi xam na ne ñooñu pas wax dëgg neex yàlla ñooñu rek. mais bon pour moi, préciser.